nii bu ñëwee tey ci lu mel ni ville de Louga liñ fi génnee ci mbalit mi bari na solide yi bari na y a les les imperméables y des tissus y a du sable y a du tout ce bari na daal ñu ngi ciy def fu ñu jaar kii nañ ko ba mu set wécc au niveau de Louga muy gris avaloir yi nga xam ne nii tey eau pluviale bi bu ñëwee ci lay dugg pour mën a dem daan station ñu pompé ko. am nañ fi ay point bas point bas yoo xam ne tey jii au niveau de euh, euh, Kër Sëñ Baara. ñoo ngi ci di ko curé ah yaa not que xale yaa ngi ci ñu nekk ci guddeeg bëccëg di ko curé soo demee cox na tey jii ñu ngi ci ay gris avaloir ñoo fa nekk daf fees ak suuf ñu ngi koy curé dal na te on va le continuer on va on est en train de di ko def avant pendant et après man dama wax sama camarades yi ñi nga xam ne nii euh, ay syndicalistes ay délégués de personnel lañu bon ñu xool euh, nan lañu ñu xoolaat seen wax waxin mën nañ nawet nañ teg wax ji teg réunion yi teg AG teg point de presse yi jublu ci liggéey bi parce que loolu la Sénégalais yi di xaare li ñu wax li ñu wax wérul li ñu wax parce que man maa ngi suivre l' évolution du personnel gisaguma la docteur Cheikh Dieng jël ci ONAS benn prestataire.